مغنيا تعالى عن سنا وكان لي بكل شر وسنا أحمد مغنيا تعالى عن سنا وكان لي بكل شر وسنا خاطبته في البر والبهر وفي أسر والجار مع الهاجر وفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائق مع سلام الله يجاري سلام على وسيلتي لك الماح الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له اليم بشارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنام woote dinaa jëm ndex moo jooli bari bari saqaay maam kaay leen liggéeyal sëñ bi mooy kaay leen taxe loolu moy liñu taxajuk tax a bi ma mang efek ngi fekk señ fallu càll ba dir bi ma toog sax xawna dis ci man ndax bàyyi sa bàyyi mu nekk ci ronuk sump nga dik tok fi loolu lepp señ bi señ señ bee ma xawal te teyit ñi ma fi gis tay dañuy murit gi te waxtanu murit bu xasse ñew doto mom sa bop mom fa ba noppi na man daanaka ñaari minute la da am waye waxtanu murit we neex ba ba dem ba ndax ñi ma fekk ñëpp ku ci nekk bopp yoon nga te li sëñ bi nekk daane ci la war rek moo tax bu néewuloon ci la war it xam nga man euh, ñu bari ñàkkuñu fay la waaye liggéey ci lii lañ moom suñ kilifa yi lii lañ leen xame woon dem ci àll ba gor ko sanc ko liggéey fa di fa yar nit ñi yar taalibe ak jàngale moo tax na du ay a tax ñi fi daje ñëw fi dañoo ñëw ngir kiri de limi muy lu bax la te ko ci jappale na yalla jappal na way jappale gi moy ku wote ci lu bax bo ci waré dem dem ci ngir yalla ngir ñi ci dess ñala cey roy fim ne ni am na ño xamni bu ñu gisee itam dañuy dal di jaajuwaat euh, ni ah gannaaw seigne Cheikh demone na di barkelu day kon nak man na jog yon lool rek fi maye dara yaakar waaw bo joge da nga am sa yaakar dañu wax ni seigne Touba euh, dafa fekk ñuy waxtaan maanaam mag mag mag mag magi taalibe yi di waxtaan ci baaxuk saaba yi mu bett leen mu ne lu ngeen di wax ñu ne ci mbirum saaba yi lañ nekkoon mu ne leen day wax ngeen dëgg de waaye lu lu lu baax kilifa di maye day am ngeen ko liñ leen rawee mooy da ngeen dul fas waaw lu lu ci waa ji duggati na koy fas ah maa ngi seet sëñ bi fas naa ci yéen nangam loolu rek la nu saaba rawe waaye neen lu baax kilifa di maye am ngeen ko loolu lañ seigne touba waxoon kon loolu laay rogalaat ba nage ni amna bis bo xamni ni dem na ci wote seigne Abdou Khadir ci yoonu daru salam Darma loola yag na bobu seigne modo ngi fi al ruux nak da sa si di day royat de go sank man leen kuñ ne sa bay bax na sonn nga ndax bobu bëggoon mel mom mo lay tax mo lay tax son te baye dañoo bax bop ki fi dajel yoon wi mo fi dajeel ñëpp waaw buñ la ne mo mo mo moy loxol yoon wi ah kone ne ku kon yoon wépp lañ woo ah hmm? daa tolloo nag ku ci nekk am nga ko la yebal waaye nag xoolit la yeble ñun ñi suñuy xel moo moo nu indi waaw hmm? moo nu ndax euh, la ngeen waxoon la sëñ bi waxoon euh, dëgg-dëgg xarit mooy koo xam ne kii bu tiisu jamono sang songee ko kala teewal mooy sa xarit waaw benn benn tiis tiis bu ñëwee rek wala benn jafé euh, ba lu melni rek ña nga xam ñoo ñëw wër la jappalé la ca ñoo ñoy ñoy ala xoxan wala khalil sidqan andaru min kulli Khalil lool rek mo ci nekk akhad wal khalil sidqan andaru min kulli Khalil haqa lool mo mo nu fi dalé waaw sant yalla bu baax di sant Serigne Touba ci rafet ndior lool ak japp ne tawfiq amna ci liggéey bi ndax yàlla def na tey jii bi ma xëyee moom mi laa jëkk gis may ubbi ñu ne mi ngi fi te loolu doy na sëkk ijaaba daaw daaw dama doon tukki euh, jëm Turquie ci taalib yi ma gën a daaw may dugg ci avion bi xaw ma ne suñ Cheikh ngi ci biir ma duggee ba toog rek mu séen ma ñëw nuyu si ma ma ne ko ah sama xel dal na dina li may doxe suñ tubaab nangu na ko kon nag mooy xëy xëy fekk ko fi moom mi ak suñu famille mi nga xam ne moom itam xam ngeen ni mu demee di seetu Serigne Serigne ak ñi ñëpp suñ maam Baye Niang mi xam ne maamu suñ Modou Fadiama xam ngeen ne ci ñett ñi njëkk jébbalu suñ Tuubaa ci la bokk Alaaji Jili Jaay mi maamam ñaari ñaari yëpp suñ Sultaan Jaw xam ko suñ Mat Jaw ñëpp xam nañ ni demee ci sëriñ bi ak ñi fi ñëpp jërut lim ndax loolu andiwu leen fi ak maam daam ñu koy nuyu ñoom ñëpp waaye li am solo rek mooy bu sa bu sa xol nekkee ci siñ bi euh, daanaka doo tala sax euh, wax li ñuy wax mu jaamala ndax yëg-yëg laa ci am mayet ndax euh, liggéey bi moom waxtu woon ne damay bëgg ñu sellal ko sellal gi muy nekk fu kese sëñ Cheikh wax na ko léegi mais sëñ Tuubaa néewoon na li leen saxaaba yi raw yi mooy pas pas pas pas lu ñuy def fas ca lii itam kon man moo tax daanaka suñu fàll mi soo wax naa ko ba tey nekk am na ci loolu bëgguma juru ko leeral ndax day yàq jëf mm-hmm. ndax buñ ne li fi def lépp dañ koy jëme Sëriñ Tuubaa loolu tuuti la mm-hmm. ndax du sant sëñ bi sax mm-hmm. ndax ndax loo fa defoon ba yéem ko ñaari fan ñett danga ko ci am kon joxewoo asakay asakay asakay asakay rek la nga am kon loolu moom lu ñu nawee di niw ci li ci des rek mooy sant bu baax a baax suñu Cheikh yi itam ñu ngi lay gërëm bu baax ci li nga jëf ndax xam ne Sëriñ Tuubaa rek tax nga jëf ko ndax sa pësteef ak sa dogu ndax euh, bu fekkoon son yoon wi wàcc am na kon ni ma la ko waxee léegi kon wàcc nga ndax liggéeyal nga Sëriñ Cheikh Mbacke mu gërëm la ba yeewi la waaye yemoo ca Sëriñ Mbacke ma dina gërëmaat la waaye doomi Sëriñ Tuubaa it Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khadir Serigne Saliou Serigne Chouaïbou Cheikh Mamadou Mourtada ñooñu ñëpp nga laqaat seen gërëm. te lenn lenn ngërëm lu mu ci doon a doyoon na mm-hmm. kon bu fekkoon wàcc dana am ci biir yoon wi kon mën ngaa wàcc ndax sa dund gépp li ma la wax léegi loolu taw taw feex la jula samaam defal njabootu Sëriñ Tuubaa itam jëfandiku ci yow mm-hmm. ba mooy cër bi nga am kon nag dañ lay ñaanal suñ boom gën a dolli sa kattan dolli sa biir ndax da ngaa bokk ci ponk ponk yoon wi bokk nga ci ponk yoon ndax sa dara génn suñ bi sa sa sa dem dikkee lépp gëndu Sëriñ Tuubaa sama diggee yow itam ginnaaw loolu li nga amee sama kilifa yëpp it Sëriñ Tuubaa boolewaat ñu boole ñu kóllëre boole ñu xarit boole ñu ak cofeel yàlla def na itam njabootu Cheikh bi li muy yaatu yaatu yaa ma ci njëkk a tuddee doom wala ko yëkkati ko jox ma kon loolu loolu doy na sëkk ab cër doy na sëkk luy wax sama diggee yow maa ngi ci sama daara jee ca yoon Darou Moussi te loolu laa ci gën a tuuti. jàpp geeg cofeel geeg lépp xam nañ ko te bu loolu lépp amutoon itam man na sama posture Sëriñ Tuubaa mooy képp ku ma gis ngay dox ngay dox ci yoon yi doxinu positif bu ma la gis tam yaa may gën kenn te sa dara génn Sëriñ Tuubaa na gën daaw yaa ngoon ci liggéey suñu saaba fukki fan a juróom fi nga toll ci at boo yebaloon say doom mu dem mu doy waaye da ngay lax saay ndef ba liggéey bi jeex kon la Sëriñ Tuubaa waxoon Cheikh bi tam la koy nett léegi rek. ba ba ba ko suñ vidéo wax ne ko nee ko na noppalu mm. ndax li ko dal lépp liggéeyal ma moo ko teg kon wàcce naa ko ci lépp mm. maam Cheikh bi ne ko nee ko du ma wàcc mukk ndax moo ma njëkk a xëy ci liggéey Rasulullah te wàcc guddi ma de kon li fi wàcc du ma wàcc kon Cheikh bi moom yéen tawfeex ji ngeen am yéen njabootam gi ci bëgg Sëñ ba mel ne tëyu leen ko day day leen ko faggoon moom moo leen faggoon ak bëgg Sëñ Tuubaa loolu moom du lu yomb amu leen sagu ci waa kër xool leen nu nit mel xool leen nu nit melut ki ngeen fekk muy jaamu yàlla ak ki ngeen fekk muy toog di waxtaan ki ngeen fekk mu ne ci yéen xamewu leen ko Sëñ Tuubaa ngeen xool ci te yàlla def ci yéen it lu may yéem dama naan leen loolu sax seen maam ngeen ko doonee Cheikh bi rek ci Sëñ dof waaye ko gis ni mu doxalee ñaan ku ko ëpp xel ne fi waaye waaye ñoom ñii seen dof gépp ci Sëñ Tuubaa waaye leneen lu doon boo ci jëmee ñoom xale ñoo xam ne ñoo la ëpp xel loolu Sëñ Tuubaa du ko defal. seen seen pàggu teefu maam am ci nag xam naa ne ba muy liggéeyal Sëriñ Tuubaa fàggoon la leen ci yéen ndax àdduna li muy yaatu yaatu li muy jaxasoo jaxasoo ba ndëgg ni man koy wax ku ci dugg ci seen biir kër yi gis yar bi gis tarbiyoo gis taalibe ba ci seen njabootu bopp yi ku leen seen mun leen xam ak taalibe loolu loolu loolu loolu loolu rëy la dara dara lu yàq jamono dugg dugg leen loolu tawfeex loolu pàggu teefu ndax kenn mënu ko defal sa ndax nit moom day xalaat. rawat na fii àdduna tool lépp nekk benn dëkk ni ñu koy waxee xew fee xew fale waaye yéen xool leen dara lu may Sëriñ Tuubaa leen dara lu may Sëriñ amu leen bëgg amu leen bañ lu may Sëriñ Tuubaa loolu tawfeex la kon nag ñi ñaan bu te tey rafet njort li nga xam yàlla dafay liggéey bi ñu xëy mu jëm ci liggéey Sëriñ Tuubaa ngeen njëkk fi kon gëm naa ne Sëriñ Tuubaa nangu ko te Cheikh Mouhamadou Mountakha itam euh, wax na keroog Sëriñ Moustahine ci fan yee weesu ne ko suñu bés jëf ji mu yore fekk daaw la ma njëkk wax ne ma li nga li nga li nga jëf li li tax mu rafetal ma jot dama la ko yéene ndax gis naa ne doxinu mag ñara dafa mel na ma ñu doon dox daal bëggoo ko soppi daaw la woon mu yónnee fa daaw màggal Poroxaan gi suñ Moussa nee na ma suñ bi tey addi ji ah addi suñ bés ji ne li fi ñëw bari na waaye addi yam ji de neex na ndax positif bi waaw baren la mu ci waxaat moo ëpp loolu ma yow de ni ma la gisee daa mel ne eh, sëñ Manoune may ñoom ngay roy ak saa yu saa noonu la ma ko waxee <laughs> te boobu néew ma ko sax la ma ca waxaat fàggul ma ko ca <laughs> du waxi du waxi mbooloo waaye kon nag ñu ngi sant bu baax tey gën a dalum xel rek gën a rafet njort tey ñaan yéen itam jéego yi ngeen dox ba fi ñun mënaluñ leen dara daxuñ leen jaamu yàlla gënuñ leen jub gënuñ leen nekk ci lu baax. kon bu ngeen def nii rek du suñ jëm yi jëm suñ Tuubaa tax suñ Tuubaa ma leen tax a jug nag moom dara umpiwu ci moom kon yàlla na ci yàlla na yàlla na seen defaru àddina ak alaaxira di seen fajug aajo defaru àddina ak alaaxira gi am na sax ndax suñu kilifa defal nañ leen ko waaye yàlla na seen fajug aajo li seen kanam wastakh bi bil xaali wal maali وهب له يا ربي يوم سبتي وكل يوم يافي عن من نبتي وجعل